atum 2019 juróomi candidat lañ woon Macky Sall doon wutuwaat boppam Idrissa Seck njiital parti réew mi Ousmane Sonko Pastef Cheikh Issa Sall pur Madické Niang jiite woon coalition Madické 2019 ñaari weer des ngir sénégalais yi tànnaat ki leen war a juróom at yi di ñëw tax na ba ñenn si ñoom di joxe seen xalaat ci nombre de candidats yi war bokk. le pays bu chef de cinq c'est bon parce que dina ci boobu vote bi su bëgg dañuy vote normal ren su ñu nekkoon juróom-ñaar ba juróom juróom tane au moins ñu ngi a jàpp nañ ni su candidat yi bëree loolee dina jural alal gu bëri nguuru Sénégal wante tamit dina yéexal lii di tànneef bi. buñ solo boo xam ne dañ koy yàq rek si dara candidat yi dafay bëri te duñu te te am ñenn ñoo xam ne dañu ne du duñ fi am dara pratiquement. waaw ci man ñoo fa nekk sax nekk bulletin yi dajale bulletin yi dajale bulletin yi dajale bulletin yi finalement buñ demee bi zolwaar buñ tax si buñ tax si waaw waaw mooy seen loxo man jëloon sax. woote doon bu war bépp citoyen teg si képp ku jàpp ni am na xam-xam ngir jiite réew mi war naa mën a bokk moo waral ba kii moom àndul benn yoon ci limitation candidat yi. képp képp ku rentré en compte a bàyyi leen quoi. après ñu dalal peuple a nit ñi les gens ne sont pas bêtes. élection présidentielle nekk lu am solo bokk it ci luy jëmal démocratie jamono ji nag dépôt candidature yi nar a jeex ci talaata ji laaj bi samp mooy ci atum 2024 ak ñaata candidat noo nar a dàggan baatu askan